wax fa dëgg yàlla waaye mu mel na seen cofeel dem na ci ba nu ñaanal ko njéggal suñu borom ci ñi jullit ñi waaye loolu indi polémique ñi ni jullit dana dana du ñaanal ku dul jullit wala dana ko ñaanal yow lan moo ci sër waaw ah, loolu jarul polémique parce que itam diini bi nga nekk day dellu ca tarixa ba bi nga nekk mm-hmm. nga ci bala nga ciy dugg dangay ngay xam faari foo nii mm-hmm. la qabla an taabudooni mhm. fa in lam taarifooni fa kay fa taabudooni mhm. xam leen ma doog maa jaam bu ngeen ma xamul dangeen di saboté rek mhm. du ngeen def dara lu kenn xam diine bi boo ciy dugg da ngay fexee xam lan la diine bi santaane ak lu mu tere lum la may ak lu mu la mayul soo xamee yooyu ba pare nag nga doog ko mën a koo pratiquer nag nga doo ko pratiquer waaye yow xamoo ko ba pare di dugg di def yu kenn xamul loolu mooy problème bi diine daal li mu bëgg mooy bala ngaa dugg daal xamal li mu la sant ak li mu la tere voilà loolu mooy mooy moo solo li nga tey bu fekkoon xam nañ ko coow du am waaye bu ñu ko xamul coow dina am mais ak loo am cofeel ci moom doo ko ñaanal loolu daal laa wax léegi tey bu ñu xamee am ñu bare wax fa dëgg yàlla xamuñu diine gi xëy na tey ba tax na am na ñoo xam ni dem nañ ba jàpp ni man rek am na ko ma ci wax mun na diine foofu moom dafa juum moom. moom dafa moom moom bu moom daa juutu moom dafa juutu moom mi la wax loolu parce que diine yëpp buñ bokkee juum moom dafa juutu dafa juutu bu baax parce diine du juum. Mm-hmm. lu alquran indi mm-hmm. ngeen ne dañoo juum yow da ngaa juutu mm-hmm. boo demee sa amul diini mm-hmm. ki la wax loolu amul diini waaw ki la ko amul diini maa la ko wax bu amoon diini du ko wax jamais diini dafa juum la ko wax dafa juutu moom ci boppam waaw diini du juum mukk mukk mukk xanaa dafay def kay loola loola jub loola jubluwul loola waa loola jubluwul nga wax waaye waaye diine moom du juum diine moom ju du juum waaw léegi xëy na nag moo wax loo xam ne arrangé wu la bu la arrangé nag ah nga waxee ko neneen wala nga defee ko neneen waaye diine du juum jamais waaw mukk ci àdduna léegi tey kon loolu dégg naa nga ni <laughs> lu alxuraan saxal la ni jullit du ñaanal ko dul jullit ko kon sama déggin man. waaw nga xam nga loolu lépp alxuraan indi na ko. Mhm. moo tax ma ne la. Mhm. bala ngaa dugg ci diine. Mhm. dangay xam li nga xam ne moom la diine gi santaane ak li mu tere. te doo ko dugg diine. waaye boo duggee ci diine te xamoo lu ma santaane lu mu tere. loolu alxuraan moo ko wax Ibrahim. ba muy ñaanal baayam. yàlla def ko ne. waroo koo ñaanal. waaw ndax bokkul ci sa diine mm-hmm. muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba muy ñaanal baayam yàlla def ko ne ah yaa ngi def erreur nag waroo koo ñaanal ndax bokku leen diine koo xam ne bu ñaanee mu nangu warul ñaanal ku ku ku bokkul ci diine waaye koo xam ne boo ñaanee ak ah, falaa falaa rek lay doon ñaan yoo xam ne gëmoo ci dara loolu jarul xuloo mm-hmm. jarul xuloo sama diine daal li bëgg ko jarul xuloo sama diine lii la bëgg jarul xuloo waaye na fekk tam ngay ngay pratiquer diini yi mm-hmm. na ngay pratiquer diini mm-hmm. di ko jëfee ni ñu ko santaane mm-hmm. voilà waaye nag bul sama diine lii la bëgg xam nga gars yi dañuy xuloo ci luñ xamul tariixa yeeg diine yi yëpp dañuy xuloo luñ xamul rek waaye lépp sawar la rek waaye boo xamee li nga xam ne sa diine moom la la sant soo ko xuloo loolu yàllaa ko yàllaa ko wax ci alxuraan waaw léegi luñ ci bëggati xanaa ñun du ñu di wax yàlla kay di topp waxu nit déedéet waxu yàlla duñ ko weddi mukk mukk mukk di topp waxu nit waaw waxu yàlla la ñuy topp dañu ne ñee nañ ko ñaanal ci seen diini ñii itam nañ yem ci seen diini bañ bañ cee dugg voilà ko koo bokkal diine ñaanal koo bokkal diine ñaanal ko bokkul diine nga maam ci moom voilà mënis na ko jaale ji mënis na dem ci rob bi man ngaa dem ca rob ba man nga koo jaale ji man ngaa lépp man ko def waaye nag doo dem di ko ñaanal waaw ñee ñoom am nañ seen façon mm. nañ ko ko defal nga fekkee ko mm. waaw bu la neexee nga fekk mm. waaye nag kanta ngay jëlaat euh, ay ñaan ak yooyu di ko def si moom kon leer na mu mel na oustaz ah, mel na boobu day day day ñëw saa su rawatina ci mariage yi sax mariage yi nga xam ni euh, ki ki nga bëgg du doon euh, du doon jullit yow jullit gi surtout su fekkee jullit bu jigéen la tey euh, lan la ko lislaam sant ci bu waree see ki nga xam ne du jullit xam nga euh, diine yëpp yam mm-hmm. lislaam buñ ne la bokkaale mm-hmm. bépp jigéen bu ci nekk bokkaale yàlla mm-hmm. jullitu la takk ci biir lislaam bi waaw boo bokkaale yàlla kenn du la takk wala tunkawul mushrikaat mhm. yàlla nee na bu leen takk bu leen takk way bokkaale ñi bu dee katolik bi mhm. doo ko takk mhm. ñoom dañu am ñetti xaaj daa am ñu wax ni Aïssa doomu yàlla ñu ne Aïssa yàlla la ñu ne Aïssa jaamu yàlla la mais du doomam du yàlla ñooñu dagan na nga takk leen tey noo leen di xam ne boo bokkul ci ñoom noo leen di xam ne bu la ndaw si nag ne man jaamu yàlla rek laa ko jàppe ndax baax na loolu la boo déggee catholique mën nañ koo takk ci charte boobu la ñett lañu xaaj xaaj bii dañ ne Aysa yàlla la xaaj bee ne Aysa doomu yàlla xaaj bii ne Aysa jaamu yàlla ñu ne jaamu yàlla nag ñu ni ñun ñu ni lislaam mën nañoo takk ci ñu ne jaamu yàlla dagan waaye ñu ne doomu yàlla sax ñu ko takk parce que ñoom dañoo bokkaale kon ñu itam duñ bokk duñ takk kuy bokkaale waaw loolu loolu rek la jafewul jafewul jafewul a jafewul a dégg jafewul a xam waaw bu dee ci julli islam bi doomu yàlla boo nu yonti yàlla Muhammad doomu yàlla duñ la takk soo ne yàlla duñ la takk soo ne jaamu yàlla nag abduhu wa rasuluhu ñu takk kooku dana dagan ñu takk la su dee ci diine Isa Euh, Moussa boo ni euh, Moussa doomu yàlla la wala nga ne jaamu yàlla wala nga ne yàlla la boo ci wax budul jaamu yàlla rek duñ ko duñ ko takk waaw xam nga ñoom ñu ne Uzayru ibnullah ñu ne Uzayru yàllaa ko jur <laughs> malaaka yi ñoom itam xattal be ko ci àll ba ne almalaykatu banaatullaahi arab yi ñoom loolu la ñu wax ñeneen malaaka ay doomu jigéen yàlla lañ loo ci man ay dof lañu rek dof ah dof buy waxe loolu ci man <laughs> ba nga koy bàyyi mu dof rek waaw loolu moo ci nekk waaye nit ñi nag euh, ñi koy weddeeg saxal dañ dul xam fu ñuy jaarale seen wax lii rek la bu dee ci lislaam bi boo ne muhammad sallallahu alayhi wa yàlla la yow xeet woowu dootuñ takk ci yow parce que mushir ngeen hmm. da naa bu wutal yàlla nawle donte ay jullit ngeen woote waaw doonte ay jullit ngeen woote mm. su ngeen ne eh, yàlla la mm. dootuñ leen takk mm. doonte jullit ngeen woote su ngeen ne jaamu abduhu wa rasuluhu jaamam la ndawam la ale mën nañoo takk ci yéen ñëpp waaye gars yi dañ ko tënk tënk boobu ñu ko tënk nag day day day day day métti ci xolu ñeneen waaw waaye boo ko tënkee ñépp xam ne lii lii la mu jeex léegi tey dañuy gis ñi nga xam ne du duñu jullit ci góor ñi di ñëw di takk ñun ñii jullit ñii jullit ci ñun jigéen ñi boobaa tamit lan mooy kii bi. jullit comme ki nga xam ne du jullit góor di takk jullit bu jigéen wala boobu dagg mu benn yoon. non ñun daal mën nañoo takk ci ñoom. Mm. ñu ciy jigéen. mën nañoo takk ci ñoom. Mm. ci charte yi ma la wax nag laa. Mm. xam nga jabar. gars yi nañ seetaan mbir yi. jabar dafa am ay conditions mhm. euh, yu wér mhm. dañ ne la bala ngaa takk jabar nañ yi am mhm. góor gi balaa takk jabar nañ yi am yooyu na daje waaye bu fekkee ne lépp dajul nga gis benn jigéen rek nga takk ngaa koy dafa rafet man mooma ci duwal nangam nangam loolu du jabar da ngay takk koo xam ne euh, xam nga yow góor gi dañ ne la bala ngaa takk jabar hmm. na nga am wa na ki suusa wa na ki suusa waaw wat un hmm. bu jëkk bi mooy laal hmm. na nga mën na nga nekk góor waaye bu la wóoree ni doo góor boo takkee da ngay weeru <laughs> jabar wàcc na wàcc na la nuun gi mooy nafaqatun góor nga nga am man dépense waaw bu dugg de kusuwatun nga am koddaay bul dugg de saddaax nga am can alal ji lay laaj wul dugg gum de sukk naa nga am boo ko takkee nga yóbbu ko sa kër moo tax Cheikh Mali takkagul jabar waaw ak ah, El Hadj mi wane ko sultaan bi ban moo waaw gi de moom mat na moom <laughs> waaw gi daal gaal moom mat na. ak ay dëgg waaw mat na di ñii. mu mat na. waaw gi. ñoo ak marié yam de léegi macha allah tey tey tey léegi bu fekkee hmm, ki dafa nekk kii du jullit ñu ni ko boo tuubul dun la may mu tuub ñu may ko ko mu tuub bi dañuy tas ah bañ a tuub bi gannaaw moom bu tuubul lu ñu ko may kay mu tuub rek bu ñu kiiwee mu tuub bi gis nga loolu du tax tax du tax ñu may la jabar tuub nit ki da koy seet mu neex ko yonent bi neex ko yàlla neex ko mu xool ni diini bii ma diini bii moo ma gënal nga daal dugg ci lislaam waaye du jigéen du dugal nit ci lislaam jigéen kese aay itam du dugal nit ci lislaam ndaw si bëgg naa ko ñu ne buur jul duñ la ko may ma dem nekk jullit ñu may ma ko ma dugg ci rek fase ko danga koy fase kay parce que gëmuloo lislaam mhm. tuub li koy waral da ngay bëgg lislaam bi mhm. bëgg yonent bi nga gëstu ko ba gis ci lu leer ci yow mhm. nga dugg ci loo ca am nag lew na la boo ca amee jabar lew na la loo ca am rek lew na la boo ci duggee waaye nag du nuy gars yi gars yombal mbir yom ëpp man daal sama jabar duma doom duma ko may ko tuubul man tuub naa ah, mhm. tuub boo xam doo julli moo julli bu dul julli yam mhm. julli boo nekk si diini si du julli mhm. ah nit ñu bari duñ julli ah duñ julli ñu bëree bëree bëree ngi ci diini ji duñ julli waaw bu tuubee ah, bu tubbee kay dañ koy dindi bañ a dindi bu tubbee ñu dindi ko bu tuubee daal baax na bu tubbee ñu dindi ko waaye dama ne tuub pour jigéen moo jaaduwul d'accord d'accord tuub jigéen moo jaaduwul waaw hmm. ah. léegi tey kii dafa nekk moom du jullit waaye ci diine gi mu ne maanaam day jaay sàngara ñoom seen diine daganal na sàngara moom ci la amee alal gi mu bëgg a tuub nekk jullit alal gi bu tuubee lislaam da koy daganal wala du dagan alal ji kay da koy dagan parce que lislaam du nangu alal gi bu ko nangoo fu mu koy jëme lislaam du nangu alal ji gannaaw tuub na alalam lew na ko waaw mbaaxul bële ba mu koy def booba booba alal ji lewu ko waaye diine jëm nekk nangu na ko diine bi mu nekk yahuud la wala nasaraan la wala chrétien la wala wala jullit la diine bi nangu na ne jaayal sàngara nga di ko jaay léegi boo koy jaay di ko jaay di ko jaay ba mu yàgg nga ne man mii li ma nekk daal de jaaduwul man daal naa tuub nga tuub dugg ci lislaam ba nga alal ja amoon fële leew na la lew fii parce que ba nga duggee ci ba nga nekkee fële la lewoon na la yow waaw ndax sa diine nangu na ko waaye bi nga ñëwee ci lislaam bi sa diine du la ko may kon da tuub boole alal jéeg lépp jël hmm. boo tuubee rek yaa moom sa alal lew na la hmm. boo tuubul nag ah